murit yëpp Cheikh Mouhamadul Muntaqa ma ànd ko nag ak sama bokk yu baax yii fi teew xam naa bi ñàkk mi tudd waaye dañuy bañ lim di bañ a tudd ku fi nekkut waaye sëñ Sidi Mbàkke mu sëñ Abdul Xaadir mi ngi nii sëñ Ahmadou Rafa mu sëñ Fadilu mi ngi nii sëñ Alhaaji Mbàkke mu sëñ Mohamadan mi ngi nii ak sëñ Abdul Asiis mu sëñ Basiiru Mbàkke mu sëñ Baara mi ngi fi ak sëñ Amsatu Mbàkke mi nga xam ne moo jiite woon njàngum xasaayit bi ak mboolem taalibe sëriñ Tuubaa yu bag yi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu ci sëriñ bi di jottale ay cant ak i ngërëm gannaaw bu mu joxee ndigal ndigal lu sell lii mu nu jox ndigal lu barke lii mu nu jox di sant ñi xam ne ñoom lañ ko àndaloon te jiitu di ñi xam ne ñoo nekk ci jumaa ji njiitul sëriñ Afi Busa muy waa Muxaddamatul Xidma ak mboolem di aji ci jumaa ji nag ni ñu ko daan limee rek ilmaan yeeg noddukat yeeg ñu nekk ci daare kaamil ak ñu nekk ci rawdu bi ñëpp ñu ngi leen di jottali cant sëñ bi ak i ngërëmam di santit mbooloo mi nga xam naka jekk ñoom ñoom ñoo koy ànd te sëriñ Basiiru Mbàkkeem sëriñ Fàdilu jiite leen ak sëriñ Basiiru Mbàkkeem sëñ Abibu ak sëñ Xaali Jaxate ak ñi ñu ànd ñëpp ñu waa rabituma daas alxuraan yi fii Tuubaa ni ñu ko seen bi digal woon jàpp nañu defe nañ ko nona kon la ca top moy ñu bok rek teewlu nam nam ko santé won ñu ñaan ci barku alquran ji fi jang ak xasida yi fi jang li nga xamni mom moom la sëriñ Muntaxa ci bopam yéene ko njabootu serigne Tuubaa gi ko bokkal yéene ko taalibe yi ko l'islam bépp yéene ko réew mi yéene ko àdduna sépp yàlla ko sëriñ Touba defal yàlla defal ci barkeb sëriñ Touba ci barkeb bayit bi nga xam ne sëriñ Touba ko wax te mu ëmb lépp li mu doon ñaan lépp baytoo ëmb na ko te moo di rahmaanu hab li jamiil xalqi rahmata man yuxni anu charri man quraanahu qaraa turu rahmaan ku ne xam na ni bayiwul kenn duñ nekk di ko leeral ndax raxmaanu ak rahim mën nañ ko ñëpp mën nañ ko tàqale raxmaanu bàyyi mën bindeef waaye sëñ bi firil ko boppam ni xab li jëmee xalqi mayel mboolem bindeef yi mu tegaat ci baatu yërma ñu raxmata man yërmande yi ka nga xam ni képp ku jàng alxuraan te jëmam ja tax dana la jox jàmm ju la doy sëkk jox la mucc gu la doy sëkk jox la xéewal yu la doy sëkk ba na soxla aw ay kon nii ko sëñ bi santaane yéene ko bindeef yi noonu yàlla na ko suñu borom defee noonu ñëpp ñu fekkee mu yàgg noo diggal ñu di ko jëfee ci barkeb Serigne Touba barkeb max doomam ba nga xam ni mooy léppam sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu